إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل المنون يا إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل المنون يا منين يوم ذو إثم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani irrahimi maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqima min annabiina wa siddiqina wa suhada wa xasuna ulaika rafiqa gayri magdubi alayhim wala dolin amin ya rabbal alamin ayuha almustamiuna walmustamiat fi kulli makan nuxayikum jamian bi taxiyati ahluljanna fi ljanna aqulu lakum assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk jullit yi ñuy seetaan ci Thiam Sono TV noo ngi leen di nuyu nuyoo yu ànd ak ziyaar ak ndokkeel leen tabarakallahu ci émission yu tedd yu sell yi ñuy def ci nuuniya bu maam Cheikh Seydul Haaji Malick di nuyu di ziyaar di ndokkeel sunu kilifa gu tedd ga Sërif Ibrahima Aydara Atijaani tabarakallahu di ko ndokkeel ci gàmmu gi weesu ci taxawaay bi ci ñëpp rek fa tabarakallahu eh, taxawaay bi am na solo ci biir ak ci biti teewaayu doomu aadama ya fa teew tabaarakallaahu ak gàmmu gi na mu mel ku ca àgg xam ni fa tabaarakallaahu leeru yàlla tuuru na ca tànt ba tabaarakallaahu e, di gërëm ñëpp nekk ci teewaay bi ak ci lépp rekk tabaarakallaahu di sant bu baax alxaaji bay di sàll moom Cherif Ibrahima Aidara At-Tidjani ndax la ma sol ca gàmmu ga ci suuf ba ci kaw yépp moo ko ñëw tabaarakallaahu yépp alalam la ñu di ko sant di ko gërëm béy di moom Cherif moo ma bool ak moom woo ma ba ma ñëw woo béy di ba mu ñëw ne oustaz sii di del ñaanal béy di maag moom rek ak béy di sama ndénkaane la tabaarakallaahu ñuy gërëm ñépp nag rajo moom ku ne coow na ko ca gàmmu tabaarakallaahu yal na yàlla barkeel alxaaji mouhamadunil mansour thiam ah fa tabaarakallaahu di ko nuyu nekk di jël ay nuyoo yu tedd yu sell di ko teg ci loxom moom Cherif Ibrahima Aidara Tidiani mu tegal ñu ko ci loxol xalifa bu tedd ba ca Tiwaawun di fa tabaarakallaahu sunu maam alxaaji Babacar Mansour gen ko miine Serigne Babacar Mansour tabaarakallaahu ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaar di ko ndokkeel te di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla may wér te woyofal yaram bi sàmm ko ci biir ak ci biti moo rakkam sëriñ Maodo ak euh, tabaarakallaahu sëriñ Babacar Abdou ak Pape Mansour ak seeni rakk ñoom ñëpp tabaarakallaahu ba ci sama turandoo Pape Sidi Ahmed mu Alaaji Abdoul Aziz Sy Dabakh nuyu borom seen bi tabaarakallaahu defal ñu liggéey bu rëy bii ca xajjatul wida yonent bi ba mu waxee message ba noppi dafa ni képp ku fi ñëw na ko jottali ku fi ñëwut képp ku wut tele rek yaa ngi ci loolu di jottali rek boobu ba léegi yaa ngi ci santaane yonent di jottali rek tabaarakallaahu Pape am cawarta lool ci tele bi nekk moo tax danaa ga fu ne nekk ci kàttanu yàlla insha allahu rabbi E, ñu di ko ndokkeel bu baax di ko ziyaar di ko jox wàccuwaayam di ndokkeel mboolam kuy seetaan Thiam Sono TV di nuyu bu baax directeur u télé bi nag Abdoulaye Jonn <laughs> tabaarakallahu Abdoulaye Jonn moom Cherif Ibrahima mu xalifa bi Serigne Babacar Abdoul Aziz ñu ngi koy ndokkel bu baax a baax ah, sunu lesoo tey bi keroog ñoo ngi jeexal jeexalee ci xuwal irniinu irninul baraya sabiqul wajhi zu xuluqin xasinin foofa lañ jeexalee keroog tabarakallahu Seydi Aji Malik nee naa la indi na irnin ci nuuniya indi na baatu irnin ci xilaasu zahab min nuuri irninihi qad zanna naadirahu iza taajjala Maodo utiliser an xat xaaza min samami mais tëgginu way wi ci cosaan Seydi Aj Maalik dafa def li ñuy wax xasfu wala tarxiim tëgginu way wi cosaan mooy min nuuri irniinihi qad zanna naadiruhu iza taajjala ay annahu annahu asa xeer googu dafa ñëwoon damir googu la Maodo tarxiim xat min samami ci leeru kanamu sayyiduna Muhammad Malick Fawade Wele nee na boo jàkkaarloo ak moom yeex a teggi say bët mën nga faa jaaree gumba ndax leeraay bi mooy ëpp doole sa bët yi fii nag mu indi huwal irniinu xoolal fee leeraayu kanam la irniin ba fële ca xilaasu zahab fii ci nuun irnin bi du leeraayu kanam mais sàng la yëkkati nuuru bakken ni ko olof di waxee huwa moom yonent bi al irniinu sanga la irniinul mooy sangub mbindeef yi waaw irniin fii sang fi firi déggal Seydi ak baatu luxam yu doy waar yi rek tabaarakallaahu yaani al irniin sayyidu saadaati sayyidu saadaati sangub sang yi mooy baatu irniin fii sabiixul wacci ku leer kanam la <laughs> loola xam nga koo koy laaj man Mansour laaj ko yaay a Aïcha sama turandoo soxna soosee laaj ko ko yaay Aïcha bi mu toogee ci néegam di ñëw ba pusa ba daanu ah, yaay Aïcha seet seet mënul gis pusa ba mu ne ah duma sonn ci yow sama njool mu xees mu rafet ba bu jógee jàkk ja ñëw leeraay bi foloote ci kanamam dina tax ma gis la jaruta yàkkamti Pape Mansour sa waaja bi mu jógee jàkk ja julli ji timis di ñëw buntu kër ga la yem leer ba di foloote ci kaw puso ba ca biir néegu yaay Aïcha waaw kenn du yonent bi yaay Aïcha ne puso bi ces yëkkati ko di way jëkkëram wa akmalu minka lam tara qattu ayni wa ajmalu minka lam talidan nisa yow sama jëkkër daal xulita mubarraan min kulli aybin ka annaka xat xulita kama tasa li amatul ku fi soxnam way ci semaine bi paase li amatul wala démb rek wala tey wala weer wi passé wala at wi sa soxna way la waaw way yu neex mën naa am waye bariwul waaw mën na am waaye bariwul waaw itam ku ku ñu wayul le nga wayaate ah waaw leen wayul way leen seen soxna yi du dara loolu dara nekku ci jékki-jékki rek sàllan ñi ko tagg sa soxna taxawee nele waaw waaw loolu la de waaw déggoo man Mansour moom boobu lay joxe soxu neen ne waaw waaw yooyu day neexal sëy moo tax sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane nee na e, góor ñi diis nañu pour foog seen soxna waaye sëriñ Cheikh nee na foog sa soxna nekk day tax mu wàññi sa bëgg-bëgg ci moom waaw mu ne di bëri looy foog sa soxna day tax sa bëgg-bëgg ci moom wàññeeku waxum bëgg-bëgg mbëggeel de déedéet waaw moo tax tabaarakalaaw yooyu yëpp lu jar a bàyyi xel la yonente bi nag sànga waaye mooy sangum mbindeef yi xoolal e, e, yaay Aïssa wa ajmalu minka ku rafetee ni yow sama jëkkër lam talida nisa jigéen du ko jurati kenn la tamaa ko moom wa akmalu minka ku matee ni yow lam tara qattu ayni bët du ko tegeti kenn la te maa ko jël xulita mubarraan min kulli aybin ka annaka qad xulita kama tasa yow daal yàlla la bind nga mucc ci benn ayib bépp ayib da nga ci mucc ka annahu kama yasa sawarahu barin nasam ca Pape Alhaji Mansour yàllaa ko bind ni mu ko neexee moo taxaw naan yàlla na noppee wërngalu waaye bu mu ëpp nekk fu ma bëgg mu yem fa nafa yem yàlla indil ma yéen yi na sëkk waaye bu mu lëkkaloo nekk ndax yéen yu lëkkaloo da yéen yuy bëri yéen yuy bëri day indi ñaawaay dem ba lëkkaloo nii ci diggante bi day indi ñaawaay nabi na yàlla xàjjale ko waaye yéen yi da nga mel ni da ko rëdd moo tax jigéen ñi di wut li ñuy wax màdd ci wolof di ko rëdd lu ñuul rëdd ka crayon bu ñuul ba yéen yi sew ndax nu mu gën a sawee rek gën a rafet surtout ci ku xees nekk tabaarakallaahu a ma ngoog mu def ca def ko ca ba mu ñuul di dox ak moom nabi nekk yësam nekk amut woon màdd kenn defu ci kerion yoon kenn defu ci dara mais yàlla ko rëddee noonu mu rafet moom sayyiduna Muhammad mu ne yàlla duggal ci bët yi yettal ma ko waaw yettal ma ko na xeef yi sëkk nekk man Mansour bët yu rëy te xef ya sëkk ni mu rafetee bët yu rëy xef ya sëkk waaw am na jigéen ñoo xamante ne buñ la xeeloo mel ni lam set jaar ci sa yaram di dagg loolu kenn mësu koo gis waaw waaw tabaarkalla <laughs> tabaarkalla loolu kenn mësu koo gis yàlla xam na ko oh Moustapha ñu yett ay bëtam saan yett ko yettin bu rafet per bu ñuul ba nekk ca digg ba weex-weex bi sëkk ko ñaari côté yi benn fekk jiwul moroomam mu ne yàlla na bopp bi rëy nekk waaw jumam dahma raasi wal jumami Seydi Hadji Malick nee bopp ba dafa rëyoon ndax dafa defoon ay njañ moom yonent bi waaw njañ nag Moustapha ñett la ci mës a def waafir ak lum limma limma ak jumam xammee nga leen waafir mooy rassa yoo xamante ni dafa wàcc ba tëdd ci kaw mbagg yi moom la ñuy wax waafir yonent bi daan na ko def mais day rafet daf koy peñe defar ko ba mu rafet ngeñ yooyu lay yëngal bu dekkee yowmal qiyaam kawar pepp pepp eh, benn kawar benn peppi leer moo cay bàyyeekoo dal ci bàmmeelu yonent nga jóg mane ne ki leeri kawaram di yee nit kooku du sa morom def limma limma mooy njañ yoo xamante ne dafa gàtt yem ci loos bi rek jumam nag mooy bi jóg tabarkalla jumam Seydi Aj Maalik nag boobu la way ci xilaasu zahab dama daxma wal jumami waaw yonent bi naan yàlla yeel yi bu mu dijj lool waaye bu mu sew lool waaw pël ba bañ ko ne pël sa yeel yu sew yi mu ne ko yikkam daaw ba ren ci laa taxaw damm ma deew ma waaw loolay dëgg di da ngay naw li nga am <laughs> tabaarakallaahu sabiqul wàcc yaay Aïssa naan ko yow daal xulita mubarraan min kulli aybin yàlla la bind nga mucc ci bépp ayib yonent bi doo ko xool xoolaat ko nga ne aka neexoon yàlla defee lii nii ci moom mukk waaw waaw zu xuluqin xasinin borom jikko rafet la bu la neexee zu xaliqin zu xuluqin xasinin borom jikko ju rafet la moom sayiduna muhammad waaw yonent bi kenn waaw sayyidu llazi laysa lahu waaw waasiul xalqi ay waasiul xulqi waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waasiul atraaf Mustapha sallallahu alayhi wa sallam irniinun bi kasril ayni irniinul baraya sayyidu sharif wa irniinul baraya ay walahum irniinun kullu shay'in moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam déggal tanaafur yi mu indi Pape Mansour xoolal maniinun yawma zu ismin maniinun manuunun xayru zu zi ujbin manuunun manuunun xayru zu ujbin manuunun allahu akbar xoolal Pape Mansour ñaari maniinun maniinun bu njëkk bi yaani zu quwwa yowmal qiyam Moustapha mooy doon borom kàttan ga yowma zu ismin borom bàkkaar ya maniinin zu daif la doon dañuy lompañ ko am bàkkaar lompañ ca bis booba nabi mooy xettali ñëpp wa rahmatullahi kullal xalqi qad xoolal kàccoor gi ñëw na di wa mutiin zahidin baari waaw sallim ala sayidin xussas safaatu ñan la zawil kabairi ngir lan kay yeen jiw minan niqami waaw loolu loolu nag noo koy dégge jullil ci sanga bi nga xamante ne laa ko jagalel ëllëg pour mu ram mu borom bàkkaar ya xam nga Pape Mansour noo koy déggee ku mucc ba noppi lu muy wut prison ku ñu àtte mu mucc lu muy wëj prison texe na ba pare ki texeegul kay ngay gàttandu jéem koo xettali Moustapha yi xettali borom bàkkaar yi ëllëg yowmal di yóbbu aljanna maniinun zu quwwa borom kàttan la moom yonent bi yow ma ca bis ba nga xamante ne zu ismin borom bàkkaar yi maniinun zu doif la ñuy doon dañuy lompoñ manuunun ku tabe la moom yonent bi man Mansour xayru zi uj bin te du yéemu manuunun la may maye Moustapha du maye ba yéemu ci limu mu maye lu mu la may rek yëgal ni war na la koo may du ca yéemu moo tax Pape Mansour tabe ci jikkay sang la de koo gis mu nay rek yëgal ni du sang tabe ngi bokk ci jikk sang yi Moustapha ko wax ci xadis bu leer nañ yonent bi nee a asaqiyun ku tabe xaribun minallaahi jege na yàlla wa xaribun minannaasi jege na nit ñi wa baidun anin naari sori na safara xoolal ñett yi ku ko am sa adduna muccoo ci àllaaxira leeru ku tabe te Mansour néew na tabekat buy gàtt fan ah ndaa ñi ngay may ñoo lay ñaanal ngay gudd fan di leen may yow it waaw ah, ñi ngay may chaque jour ñu ngay ñaan diw yàll na fi ne rek tabaarakallaahu waaye mel ni góor gu nay ga ndeysaan góor gi bu xëyee day toog ci buntu këram xëyut liggéeyut demul fenn attaaya lay teglu di naan di yey guro waaye benn xale saa yuy xëy rek jaar ci góor gi dóor ko cent dem liggéey ji góor gi am bis mu ne lii duma ko muñ faaw ma laaj booy bi lan moo tax sag suba mu jox ma cent mille mu woo booy bi suba teel ne ko euh, doom lan moo tax saa yoo fi xëyee di liggéey ji rek jox ma cent xale bi ne papa dama seetlu ni saa yu ma la mayee cent mille wàccaaleeg un million yu tegal góor gi damm sées bi fatu soxoor fa la yem pour moom war nañ koo sédd lu ëpp loolu te xëyut ah, fatu sax doy na waaye damm sa sées itam kooku iñaan nañ ëpp ah, tax ku tabe jege nit ñi jege yàlla sori safara waaye déggal sëñ Hadi Nouré aw nay bu dee nëb nëri naykat xawma day ñuuxu ci kàmbu niiraani am na nu ko sëñ haadi wayee ci wolofalam ba waaw wax ko waxin bu doy waar aw aw naykat day sori nit ñi sori yàlla ñuuxu ci kàmbu niiraani xoolal ñuuxu la ko tuddee ñuuxu waaw moo tax nay yàlla nañ ci yàlla musal waaye nay ba sa kër buy lakk da ngay bipp loolu musiba la wa miftaaxun wa misbaaxun muniirun pam Mansour lii yaatu na de ndax ndax dina xaj ci li ñu dese ci taa lii yaatu na de wa miftaaxun wa misbaaxun muniirun rek émission la jawaadu Mustapha aynul uyuuni waaw kon kay ñu jëlaat ko après lii wa miftaaxun bi rek mooy xis tabaarakallaahu bu doy waar boobu bu ko indi rek indi miftaax bu leer nañ waaw yal nañu yàlla defal jàmm defal ko bépp mboolam jullit yàlla sàmm ñu sàmm bépp mboolam jullit ci barka sayduna muhammad wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bu ñëwee rek wa miftaaxun moo lëkkaloog fatihatul kitab moo lëkkaloog salaatul fatiha al fatihi lima ugliqa wa miftaaxun wa xalaqatil abwaabi wa haalatihi ta lakk wa miftaaxun waaw moom dafa dafa doy waar de miftaaxun bii may ñëw bari nay sekkara waaye xajul ci émission nekk du ma ko joxe de yàlla nañu yàlla defal jàmm salaamualeykum wa rahmatullah